daje bi tey li ko waral mooy ku ne xam ne ne bàjjenu gox ci social rek lay dox ñuy dox ci social nag ba suñu xel dem ci mutuelle de santé CMU élève am ñu ne lan moo tax CMU élève war a am te CMU daa ndongo daar war te mën a am te ñoom ñëpp ñu ay doomu réew mi am ay mbokk même droit loolu moo indi ci suñu xel ñu ne CMU daar ñun dinañ ci dugal suñu loxo liñ ciy dugal suñu loxo mooy ci dans un premier temps dinañ jéem a jël lu ma téeméeri ndongo tasaare leen ci ay daara daada ju ñu jël fi tuuti pour un premier temps suñu demee ba at mi jeex ñu évaluer bu ñu évaluer nag ñu yokkaat suñu loxo bu ñu mënee am ba junniy ndongo suñuy mëbët yàgg na fa yàlla nañu yàlla may doole ci bañ mën faa yegg voilà lii di am daf ñoo fekkoon ma may li ma wax ci social la ñu fekkoon mm-hmm. fii ku ci nekk am nga ay dongo yoo xam ne yow yaa leen di toppatoo yaa leen di jox ñu ndékki yaa leen di jox ñu añ buñ ci limee yaa leen di fóotal kon loolu déjà lii fekk nañu ci gu yaram gi rek moo desoon te loolu sax suñu ICP bi daan na ci jàpp bu baax ndax ndong boo masaan fan ndong ci mbedd mi indi sax boo ñëwee indi mu fajal la ko kon moom loolu fekk na ko ci def ñu def ñu cee gën a sawarloo te comme niñ la ko waxee lii day dañ ko ubbi rek waaye ñun dañoo ubbi rek waaye ku nekk war nga cee mën a dugal sa loxo ndax benn xale ñaar téeméer defe naa ne ku nekk am nga ko kon ñuy ñaan yàlla ñi nga xam ne yàlla mën na leen gan ku ci mën a jël fukki xale xayrun ku ci mën a jël ñaar fukki xale xayrun lu ci waay duggee rek ah mbirum yàlla moo noo ci sooboo rek noonu ngay tooyee nawet bi moom si biir mooy gën a bëri te ku ne xam na ne état bi mu ngi ci politique yi joxe ay moustiquaires ñun foo ci sit boo ci dem di nga fa fekk baajunu gox mu toog di bokk ci joxe moustiquaire yi buñ paree itam dinañ dugg ci nit ñi sensibiliser leen pour ñu takk moustiquaire yi ndax am na ñoo xam dañ leen koy jox ba pare duñ ko takk wala ñu koy utiliser neneen mais loolu itam suñu beneen liggéey la sensibilisation la ñuy def ci koñ yi wax nit ñi ñuy takk di contrôle itam dem ba ci biir néeg yi sax di xool ndax nit ñaa ngi takk moustiquaire yi bu dee li jëm ci ndongo yi itam sëriñ daara yi danañ defe naa ñoom it ñu ngi ciy góorgóorlu ndax ndongo yi itam dinañ leen takkal moustiquaire dinañ leen wax itam ñu maytu ndox yu salte yi dinañ leen wax itam ñu moytu itam di tëdd fa amul moustiquaire sëriñ sëriñu daara yi loolu dañu leen ciy soññi ndax comme ni ko Bira waxee ñu dinañ leen jox comme ni ñuy joxe ñëpp mais na ci xale yi di tëdd su ko defee si bureau bi mën ñoo wan ginnaaw. Ah, di sant bàjjenu gox yi nga xam ne xalaat bii ñu xalaat jëmale ko si daara yi moom muy faju moo xam ne day yomb te jàppandi loolu sëriñu daara yëpp am nañ si mbégte am nañ si kontaan bu baax ñoo ngi koy rafet lu baax a baax di leen sant ñoom ñëpp bàyyiwul leen kenn te di si woo mbokk julli yëpp mbokk taalibe yëpp ñu jàppale leen si ba dong daara yi ne si daara yëpp di man di faju te duñ am benn jaaxle te duñ am benn jafe-jafe daal kër yëpp la mboolem ni mu amee si kër yëpp rek noonu la amee si daara yi nag waaye daa gën a rawatina si daara yi ndax daara yi moom kenn lañuy jox ñu bari ñu bari ñooñu mu yor nag mu leen a taxawu bëgg leen a lijjanti kon dana metti wante bàjjenu gox yi nag jàpp si ànd kook ndey daara yi loolu moom bu buñ ko àndee dana gën a baax moom. ma daal moom ni ñu ko waxee rek si réew mi lañ bokk comme ni ni ki ni ñëpp bokkee daal moom bu bu état defee li mu war a def bàjjenu gox yi def li ñu def waajur yi def li ñu war a def ñëpp def li ñu war a def rek jàmm danaan ñooyu rek lépp lépp mën a jëm kanam daal waaw. loolu moom dañ ko war a fàttali ñëpp xam ne si Mountakha moo njëkk a tàmbale yëkkati woon ñaar fukki million moom def si kon moom loolu daa ubbi bunt bi te daa wax na ko ñëpp roy. kenn ku ne daara ja nga gën a jege boo defee ni bàjjen gox yi def àndandoo kenn ku ne daara ja nga gën a jege nga tàmbale sa benn ñaar ñett bu yàggee moom dana maase ba benn jafe-jafe dootu amati si donga daal. ñu daloo initiative la boo xam ne ni bàjjeni gox yi nga xam ne social la ñu dox moo jëloon seen alal defoon ko ci formation en communication gën a mën a jokkoo askan wi jëloon it seen alal def ko ci ay xew-xew yu xewoon ci ginnaaw ci dëkk bu ñuy wax. Euh, naka la bi tuuti Tawa lakk bu mu fi lakkale woon ñu dajale seen yéere jël ambulance bi duy ko ba mu fees lépp ci social ñu dem ba am initiative bu ñoom semi élève am na am na ñu ciy dugal seen loxo comme major Kandji fii nag ci Mbàkke gisagun kenn koo xam ne nii taxaw na ci taxaw ba war a taxaw parce que information bi des na ñu bari war nañ koo jot ci jotuñu ko ku mel ni Serigne Abdou Khadir Mbàkke imam bu Daaru dugaloon daaram ci seemi daara honorable député Thierno Ibrahima si dugaloon na daara yi ji nekk koñam bësum ci seemi daara mais ñaar ñooñ laa ci xam ci suivi ba aussi biñ ci soxla woon nun mutuelle yi ak dongo yi amuñu ko woon léegi nag suivi boobu lañ soxla ñoom ñoom initiative jël ay dongo daara pare ne leen dugal leen ci ay mutuelle ba pare nag taxawu leen taxaw mooy lan képp koo xam ne am nga ci problème lu mu tuuti tuuti ñu xool sa diggante ak mutuel bi sa diggante ak personnel de la sant diggante prestation yi ak mutuelle bi est-ce que normalement lii sa ak ak CLF ñu ngi la jox wala joxuñu ko bu la ko joxee ñu ñu sant bu la ko joxul ñu taxaw ñu jox la ko ñu xam ne seen ak ak seen élève la mayuñu leen saraxuñu leen danoo am droit à la prestation ñu war leen taxaw nag ñuy faju ba tey initiative wu état la mais malheureusement information bi ni mu war a jàll jàll ni seemi élève doxee ci Sénégal surtout région de Diourbel bi ñu daa doxee fi noonu parce que semi daara bi ko njëkkee lancé dafa daje Covid ñu dem a Muntaxa mu joxe ci vingt millions wax ni mu ngi leen di jàppale mais comme rabité bi nekk Touba ñu ngi yoree vingt millions yooyu waa Mbàkke di xaar di xaar di xaar ba gis ñu benn suivi ca loola ñoo am initiative bu ñoom def benn pas en attendant ñu gisaat leneen léegi nag loolu mooy initiative bi dëgg mooy ab junj la ci ñi nga xam ne ñu ngi dëkk Mbàkke def social ba kenn ku nekk soo gisee lii nga bañ a xeeb sa ñaar dërëm wala sa ñetti dërëm pour jàppale leen ci dynamique bi ñu nekk nii mutuelle yi nag bari na Mbàkke daara yi bari na Mbàkke te buñ sañoon daara yëpp leen couvrir daara yëpp leen jël couverture maladie universelle duñ bàyyi benn dong buñ sañoon ñu xam par exemple même bu egsiwul Mbàkke it ñu xam ni bon waa Touba consommé nañ ko ba dongo yi war a euh, enrôler yëpp enrôler nañ leen ñoo xam ne donc si seemi euh, daara mu ngay dox Touba ni ñu ko souhaité ba sëñ bi dugal ci loxoom